faambusan sara munu jam kangu fela a fa fele fasi sangir ma an sarjake usgalam xarña goton ar xuɓadi ɗoy al golle isam fe lande ko safi jaye o gamo lande dudu fay ousmane lor giba e amateur ke ndam no rew mi a cosane nono sereer yon fanone cosaane e nuuno seereer yon ka nuune hey e ama dorge loor yo a cosaane e nuuno seereer yon e nuuno seereer yoon fa nuun ey Fallou Faye Ousmane loore mi a cosaane e nun o séeréer كجيل تيجا كسار صنو لفلودا يمسي سنسرت غسان باري اي yow noo tudd yow. Ah? Fane Ndiaye. ah. Fane Ndiaye Fane Ndiaye. Fane Ndiaye. yow da ngay ah? delloo ziar rek. yow xanaa doomu mbay nga yow. waaw waaw. foo dëkk yow. ah foo dëkk. Fambin. Fambin laa dëkk Fambin. Fambin naa la. ci loo foo dëkk yow. ma ne kontaan ci noo tudd yow. Khady Sarr. yow man ngay piis. déggu ma. ma man ngay piis. ma man ngay piis quoi yow. ah waaw ah, loo ak Mbayang. man dara bokkuñu dara de xanaa aar bi. da ngeen xoolal yaak moom da da ngeen a xaw a niroo. Ah, moo ko def yàlla moo ko def. foo dëkk yow. maa ngi dëkk Fambine. lii la. lii pour neexal laamu bi kese waaw. tur Khady Sarr dëkk Fambine. Khady Sarr Fambine. ok merci. Mbaye nga ngi nii maar. ci loo maa ngi ci jàmm. yaa ngi fecc de. ah. yaa ngi fecc de. maa ngi fecc. yaa ngi fecc. waaw dama bëgg ñi feebaroon wér. ñi feebar laa bëgg ñu wér. ñi feebar laa bëgg ñu wér. yàlla na ñëpp wér mais dama lay laaj leen. mbay ak luum macha allah boo woyee ñëpp yëngutu ñi déggul séréer sax dañuy yëngutu lan la lu xew. yàlla la rek yàllaa ko def defuma ko keneen defu ko yàlla rek waaw def lépp. sa digganteeg Yékini. yàlla rek. yaa ngi Yaxya Joob Yékini yaa ngi Yékini seen diggante. daa nekk promoteur rek ma nekk artiste parce que. jël na ay artistes yu bëri man it xëy naa dama see war a jël suma wàll rek mu jox ma si suma wàll waaw. saison bi passé yow lañu ñu nominé ne yaa jiitu ci waykat yi ñuy way lambu séréer lool bi nga ko yëgee nan la def ci yow. dégguma saison bi passé ni yow la ñu tànn comme ku dàqa way wala boog yaa jiitu ci ñuy way wayu séréer ci làmb loolu bi nga ko yëgee nan la la def. non dama ko jël delloo ko ci yàlla rek. dama ko jël delloo ko si yàlla dama xam ne samay yaay ak samay maam ñoon laa fekk si groupe Yaye Khady ñuy woy kon bu ma demee tamit ba yàlla may ma si dara rek lépp yàlla la ak suñu chef muy Khady Diouf mu nga àllaaxira nag mais macha allah liggéey na fi lu bëri liggéey na fi lu rey aussi lépp grâce à moom la ma sant ko nag gërëm ko di koy ñaanal fa mu nekk yalla na suuf oyow ci kawam parce que lépp moom la lu ne ci man rek. moom la moom deful si man aar kese man mun naa coiffure mun naa defar kanam mun naa rabu ay darab lépp moom la parce que dama doon woy lamb bu lamb ja jeexee mun ne ma àndal benn xale bu jigéen nga dem defi salon ma nekk fa lundi mardi mercredi ba jeudi làmb ma ñëwaat daa def si man lu bëri waaw sa digganteeg waykat yi sama digganteeg waykat yi jàmm rek parce que comme ni ma la wax sama yaaye sama yaay lañ samay maam kon waruma seq ak moom dara leen dara lu dul jàmm rek jàmm laa ak ñoom ku ci am dara boo ñu yëgalee dañuy dem ñun ñëpp benn lañ peut-être nag nit ñi ñoo xamul rek lépp nag ña xamul ñoo nekk di wax ñi bootu suñ ginnaaw ñoo nekk di wax mais ñun ñëpp lañ waaw. jiga lan moo tax nga koy way. ah jiga lan moo tax ngay way jiga. noo jiga suma doom la parce que bëgg yéeg a koy fay te daf maa bëgg di may tiitaro fu mu toll. nee na moom bu ma gisee ci làmb ma toog sax baax na kon nag kooku daf maa bëgg te man dama ko bëgg man ko ma bëgg rek fii laa lay def. bi nga wayee loo ko wax ci way wi. ah loo ko wax ci way. dama ko ne Diga Diop ah, bu Mbayang Loum ak Grand Mbagnick parce que suma fans la mais fans Grand Mbagnick la ñu ne lamb bi di tëgg ah, ah gaynde bi di ñëw xale bi dëkk Réfane. mais wax ko ci séeréer. Ejika Juma nena lomba yang manyifai Lamde jina te jaiwa ta nyugo ini kena refani kontaan ci ah kontaan ci yow be maa gën a bég ci yéen yàlla yàlla def jàmm rek ci Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ko